ñun CICES dañu gis ci euh, internet bi ak euh, presse bi en général euh, ne CICES dañu fas yéene indi fii ay étudiants pour ñu ñëw jàng si fii waaw bu ñu ko déggee mu jaaxal ñu aussi quoi parce que CICES mission bi ñu ko jox nekkul mbirum jàngale donc fii ñu xajal ay étudiants ñu ñëw fi ne dañuy jàng parce que lépp lu nit war a soxla pour mën a jàng déjà amu fi. donc bu ñu waxantee dëgg rek bu ñu buggee jàng université la ñu dem et CICES li fi nekk yëpp boo ko dajalee njàngum élève mënu fee ne d'accord ñu ci bëgguñu ko mënul nekk et je sais que même yi bëgguñu ko mbirum njàngale moom mosuñ ko fee jéem xalaat donc du ren aussi lañ koy jéem a def d'autant plus que euh, comme ni ma ko waxee université lañ tabax pour jàng bon Dieu loolu foofu mën nañ fa jàng ji pourquoi pas étudiants yi foofu moo leen gënal foofu moo mooy fi nga xam ne moo adapté pour jàng fii amul leen loo xam ne parce que dafa am commodité yu muy demandé pour nit ki mën a nekk fenn jàng fa à l'aise loolu soo leen indee fii coono lay jur ak ay yeneen te loolu mënu fi nekk ñoom seen bopp xam nañ ne mënu fi nekk